wala ñu ëpp ci askan bi nelawatuñu ngir situation insécurité bi nga xamante ni am na ci réew mi maanaam ñàkk gi doomu Sénégal yi ñàkk kaaraange ci seen biir réew jéggi na dayoo ba foo ko takk weesu na ko loolu nag ñu jàpp ne sunu cër la sunu responsabilité la ñu yëkkati ci sunu kàddu naqarlu ko ba fa naqarlu mën a yem daal ñi ci a wax faw ñu wax ci ñi ci a yëkkati seen kàddu faw ñu yëkkati seen kàddu ñun nag kenn ku ci nekk yaa ngi dajale way taskatu xabaar yi waaye ñu gis dafa mel ni kenn ku ci nekk rek sa bopp da laa gën a askan bi ñun na comme askan bi moom moo tax ñu yëngu moom moo tax ñuy dal ñoom leen ñu bëgg a bëccëgal di leen guddee ñu jàpp lii kat nañu ko baaxoo woon di def yell na ñu yëkkati sunu kàddu woo ñi nga xamante ni ñoo war a saytu askanu kaaraange euh, askan bi ngir ñu gën ko bàyyi xel ndax lu ëpp tuur te li ëpp na ba noppi ndax euh, bi ma nee ñoo ngi yëkkati kàddu njaal dañ ciy tànn ñaar ñoo xamante ni mën nañoo teewal ñi nga xamante ni yëpp seeni bakkan rot na jamono bi ci ñi ñu xam ak ñi ñu xamul am na ci ñoo xamante ni média yi jot nañ ci ñoom am na ci ñoo xamante ni média jotuñu ci ñoom ñu tànn ci Euh, ki nga xamante ni moom moo dëkk wakaam ngeen koy dégg démb ñu faat ko faat boo xamante ni bu doy waar la muy papignan ñu koy jaale ay mbokkam di ñaan sunu borom mu xaare ko aljana yokk yërmande ci kawam ñu faat ko faat boo xamante ni faat bu doy la faat bu ñaaw la bu ëpp la bu jéggi dayo la mel ni nag réew mi dara xewu fi loolu moo yéeme dañuy faat nit te kenn ku ci nekk mën naa dal ci sa kaw ni ñu koy waxee li fekk dalul ci sa kaw nag dangay ngay jàpp ne loolu yow euh, da ngay jàpp ne ñeneen ñi rek ci ñoom lay dal ba muy dal ci sa kaw loolu moo tax mbir yu mel nii su amee ngeen miin ko lool ci sunu kàddu ñëw digg woon ak yéen tamit ne leen nañu meloon ca toogaay ba nga xamante ni ñoo ngi ko doon toog taxawaay bii nga xamante ni moom la bëgg a am tey dara du ci soppeeku bu dollikuwul du soppeeku mooy la ñu doonoon démb moom la ñu fas yéene doon tey waaye bu tey bi di leen gërëm di leen sant ci ni ngeen ñu gungee di leen sant bu baax di leen gërëm bu baax ci ni ngeen ñu gungee ci étape yépp nga xamante ni jaar nañ ci di leen wax ngeen yokk ñu ñaan ba nga xamante ni Sénégal li ci mag ñi bëggoon dinañu ko def ba mu mat sëkk